mbokk internet di ziar naa leen ba yéen a ngi am jàmm tey ma amati mbégte ñëwaat ak yéen ci seen émission bu am solo bii di solution lii benn femme la femme bi nee na moom yàlla dafa def borom këram dafa yoroon daara nee na nag bi nga xamee ne borom këram dafa yor daara nee na borom këram amoon benn kóllëreem boo xam ne mu ngi dëkk ba Joal nee nag kóllëreem boobu daal yëkkati benn doomam bu góor daldi ni ko sama doom bii dama la kaa jox àddina ak allaaxira sama dund ak sama dee nang ma ko jàngalal alxuraan ba mu wàcc ndax man alxuraan rekk laa bëgg mu jàng ko nena nag borom këram daal daal di koy waajooju daal xamal borom këram comme ni ko olof di waxee xale bii daal ay yaxam laa la laaj xale bi nag turam mu ngi wuyoo ci turu Cheikh Ndiaye dëkkoon Joal ay waajuram dëkk Joal nee na jox ko borom këram moom mi ngi dëkkee fële ca jurbeel boroom këram yor daara bu mag a mag a mag fële ca Jurbel nee na nag bi nga xamee ne yàlla def na boroom këram indi na xale bi nee na xale bi ñëw fa di jàng di jàng di jàng ba yàlla def xale bi di waaj a wàcc alxuraan nee na nag bi xale bi di waaj a wàcc alxuraan nee na yàlla daa di def papaam bi ko joxoon boroom këram daa di génn àddinam nee na bi papa ji génnee àddina nee na borom këram daal di jàpp loxo xale bi ànd ak xale bi dem ba Joal pour jaale ji ki nga xam ne moo di pàppay xale bi nee nag bi ñu eggee ba si dëj bi mbokki waa ji daan ne ko kii daal comme papaam dane la woon ay yaxam la la laaj te dundam ak deewam na nga jàngal doomam ji alxuraan kon nag wax dëgg fa yàlla bu génnee àddina tamit mbébétam boobu dañ koy daal di yeggale su dëj bi paasee na nga jàppaat ci loxoom ngeen dellu jurubeel bi nga xamante ne fa la sa daara nekk nga continuer nga jàngal ko ndax loolu la baayam sàkku woon depuis ba muy dund neena na nag ci la ko boroom këram daal delloose bi nga xamee ne dëj bi paase na nee bi dëj bi paase ñu indiwaat xale bi nee na xale bi di jàng di jàng ba yàlla def a korite daal di jot nee na bu korite jotee xale yi dañ leen di may burdu nee na biñ leen mayee burdu xale bi toog ay semaine a jàngiwul neena na nag ba nga xam ne semaine bi jeex na ñu war a reprendre jàng bi nee na xale bi dem di jàngi daal di fay jaare daw nangootula ñibbisi ci kër gi nee na nag ñu wër ko wër ba sonn nee na yàlla def am ñu ko jot a gis ci koñ bi nee na bi ko ñu gisee ci koñ bi daal di ñëwaat ba ci moom ne leen Seex Njaay de gis nañ ko fële am na fu ñu ko gis daal di leen koy tettal nee na nag biñ leen tettalee ne gis nañu Seex Njaay nee na ci la daal di demee da ñu dem wëri ko ba gis ko daal di koy téye indi ko ba ci biir kër gi nee loolu c'était en nee bi ñu demee ba wëri ko ba indi ko ci kër gi nee na moom ci boppam moom ndaw si nga xam ne jëkkëram la ñu jox Cheikh Ndiaye mu yor ko nee na mu daal di ko ne taxawal ci peron bi mu génneel la ay yére nga dem sangu boo sangoo ba pare nga daldi sol yére yi nee na xale bi daan ne ko waa nee jamono yooyu xale bi tamit mu ngi nekk xale taxu ko woon a nekk mag noonu ndax fotoom sax dinañ ko afficher après ci ginnaaw ngeen gis ko léegi nag nee bi mu waxee loolu xale bi nee xale bi bàyyi ba mu dugg si néeg bi pour di ko génneel ay yére nee na xale bi daal di yéeg escalier yi yéeg ci kaw nee nag bi xale bi di yéeg ci kaw waa kër gi naan ko génnal Cheikh Ndiaye mi ngi yéeg ci kaw mi ngi jaar ci escalier yi nee na mu ne leen ah xam naa ci kaw lay dem rek après ma fekk ko foofu jox ko yére yi nee bi mu génnee yére yi ba pare daal di yéeg ci kaw pour jox ko fa yére yi ndekete yoo seen kër ak kër gi ñu taxalool ñaari étage yu dend la maanaam boo taxawee ci balkon wu kër gi mun nga jéggi dem jàll ci balkon wu beneen kër gi ba pare boo fa cëppeeloo mun nga génn dem ci dem jaare ci beneen buntu dem sa yoon nee na nag laataa muy yéeg escalier yi pour fekk Cheikh Ndiaye ci kaw jox ko yére yi mu sol nee na ndekete Cheikh cëppeelu na ci beneen balkon bi ba daal di wàcc ci kër googu daal di génn dem yoonam nee na nag depuis jour boobu c'était en 2018 ba suñu jooni yàlla tey jii gisuñu Cheikh Ndiaye nee na daal juróom benni at ci ren gisuñu Cheikh dégguñu Cheikh wër nañ ko fépp fuñ ko war a wër gisuñu ko du moom du ay mbokki Cheikh nee na nag wax dëgg fa yàlla juru ko mais daal li ko ci naqari mooy xale bi dañ ko joxoon jëkkëram jëkkëram yor ko ba papay xale bi génn àddina teewul mbokki xale bi daal ne ko delloo ko ndax loolu la papaam bëggoon nga yor ko nga ne xale bi depuis 2018 mu réer leen ba suñu jooni yàlla tey ñoom ñu ngi koy wër gisuñu ko xeetu ñaan bu ne ñaan nañu xeetu sëriñtu bu ne sëriñtu nañu pour xale bi feeñ mais nee na ba léegi xale bi feeñul ndaw si nag di sàkku képp ku gis Cheikh Ndiaye mii rek nga daal di ko ciy jàppale te yàlla rekk tax ndax nag papay Cheikh Ndiaye génn na àddina te it dafa ne woon jëkkëram na ko téyel Cheikh Ndiaye dundam ak deewam na def ci moom alxuraan te it nee na xale bi ci âge boobu mu amoon jamono yooyu jàngoon na alxuraan ba doon waaja wàcc daal ci la daal di dawee ginnaaw bi pàppam génnee àddina korite paase mu jaare fa ba ni mu rëccee daw nee na nag wax dëgg fa yàlla muy sàkku rek ku ko mën a jàppale ba ñu gis Cheikh Ndiaye ndax nag ñoom sonn nañu façon wër bu nekk wër nañ ko muy sàkku mbekk mbokk internet di képp ku xàmmee Cheikh Ndiaye boo ko gisee dëgg la nag ba muy réer la gën a nekk xale ndax am na juróom benn at toppaat na ci at yi mu réer waaye daal képp ku xam Cheikh Ndiaye te ay waajuram dëkk Joal nga jàppale ko ci te yàlla tax ndaw si nee na moom mi ngi dëkk Jurbel moom ak boroom këram la papay Cheikh Ndiaye joxoon Cheikh Ndiaye depuis bi mu nekkee xale pour mu jàngal ko alxuraan mais nee na xale bi daal nii la dawee depuis boobu am na juróom benni at ba léegi mënuñoo fexe ba daal di teg kii di Cheikh Ndiaye bët ba tax na tey nag mu daal di koy indi émission solution pour ñu jàppale ko ci bu baax a baax ndax nag bu dee dëgg rek kay dëgg ndénkaane dafa foor rawatina koo xam ne ki la ko joxoon génn na àddina te dane la woon ay yaxam laa la laaj sama dund ak sama dee nag ma téyel sama doom tey xale boobu papa ji génn àddina yow miñ ko dénk xale bi rëcc la daa di daw dem juróom benni at nga koy wër gisoo ko wax dégg fa yàlla nee na loolu lu metti la ba tax na ndaw si nee na donte jurul Cheikh Ndiaye dafa mel ni moo jur Cheikh Ndiaye ndax nag boroom këram la ñu joxoon Cheikh pour mu yar ko xale bi daal dinay rëcc daal di daw muy sàkku nag mbokku internet yi ku ko mën a jàppale ba mu gis kii di Cheikh Ndiaye rek ndax nag wax dëgg fa yàlla juróom benni at amuñu ci moom benn trace muy sàkku rek képp koo xam ne gis nga xale boo xam ne mi ngi tudd Cheikh Ndiaye te xale bi gisoo mu nekk ak benn waajur nga daal di leen siy jàppale ndax ñu mën a récupérer xale bi ñu delloo ko waajuram bu jigéen bi nga xam ne mi ngi doon dund ndax nag papaam moom génn na àddina te moo ko joxoon borom këram ay ca mu ngi noonu ñu koy masaw bu baax a baax yàlla na ko yàlla nit ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ti leen fàttali bu baax a baax ngóor naturel comme ni ma leen ko waxee rek ngóor a naturel suñu ay gàncax lañ ko defaree jëlee ko fële ca Fuuta ak ca Casamance daal di koy boole mu nekk produit bu am solo bi ngóora naturel nag ni ngay gisee sachet bi mun nga kaa utiliser di fois parce que kuddu café bu ndaw ngay def daal di koy boole ndox xóoyal naan te it amul benn effet secondaire ndax ni nga xam ne jot nañ ko utiliser def nañu ay retour que ne ngóora naturel indilu leen a benn jafe-jafe te it am na doole bu am solo boo néewee kàttan daf lay jaadi jàppale ba yàlla dimbali la nga jotaat lii di sa kàttan ku bëgg ngóor a naturel da ngay woote ci 77 531 25 79 77 531 25 79 bu ko defee nga daal di am ci ngóor a naturel bu am solo bi ay ca mi ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax jaajëfal laa coréenne moo nekkoon na ci caméra bi nuy suñu DG Latir nuy équipe bu technique bu Thiès Info yëpp di jaajëfal internet yi safoo di seetaan a solution di leen jaa jëfal bu baax a baax di leen joxaat dig daje suba incha allah ci yeneeni solution D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Télé Sénégal Info.